ndax li nekkat suñu musiba ci jamono ji mooy jàngkat yi muñ ci xam-xam ba am xam-xam bu ñu mën a leeralee dëgg bëreetul li fi nekk mooy jëfandikoo xam-xam ngir ut tur jëfandikoo xam-xam ngir nit ñi topp la nit ngir dem ci plateau tele yi naan ay buzz bu ñu demee ba xam-xam bi nga xam ne yow mi ko yor dalaa war a yar ba nit ku la gis wekk la wormal la naw la naw sa diine nga nekk royuwaay ci sam réew di jàngale ak di yaraate di yar jeunesse bi di jubbante nit ñi di ko def te yàlla rek tax lenn ci loolu yëtteelatul nit ki ci boppam du ay jikkoy boppam boo ko gisee ci ay comportement ak ay waxinam rek nit ñi jàngul sax ñoo ko tane ñu jël ay turi oustaz ak yu mel noonu tuddee leen ko ñu sol seen i garaam mbubb naan ñoom ñoo xew ci jamono dem ci plateau télé yi nefa fa di doyadal diine lislaam di foowee diine yàlla ji di wax ndax nit bu fekkee da ngaa tuddoo diine am na yoo xam ne sañatuloo ko ndax boo ko defee du yow sa jëmm ji ngay doyadal waaye diine yàlla ji ci boppam ngay doyadal moo tax yàlla waxoon yonent bi soxna yonent bi ne yaa nisaa an nabii lastunna ka ahadin min an nisaa yéen soxna yonent bi yamoo leen ak yeneen jigéen yi ndax yéen kilifa gi nga xam ni moo leen di denc bu ngeen defee lu jaaduwul dangeen ko ci taqaaleel deram moo tax man yati min kunna bi faaxishatin mubayina yudaafu laha al adaabu difayn ku def ci yéen ñaawteef boo xam ni dafa feeñ ba nit ñi gis ko impact bi muy am day rëy lool ndax dañ naan soxnay diw moo ko def dootuñ wax ne diw moo ko def waaye dañ naan soxnay diw mooy dañ koy lëkkale ak yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ku ko ci def ci yéen dinaa ko dubleel mbugal ñaari yoon loolu la yàlla wax soxna yonent bi loolu lan lañ ciy déggee liñ ciy déggee mooy nit boo amee loo incarné ba am benn image bu ñu la jox ci société loolu danga nga koo war a sàmm xam loolu lan la surtout bu dee diine la leneen li ci naqari ci xol moy nulité bi fi nek médiocrité bi fi nek ci ñak xam l'islam mëno ci dégg kenn ci ñom mu waxal la ben masala fiqh wala ben tomb ci pass pass wala ci tawhid wala ci dara léral lako ci anam bo xamni da ngay xamni ki limi wax xam-xam la da nan la yalla ko wax fi yonent be ko wax fi te xa xadis ba nek hadith yu wér ndax nit ko xamni limi wax 99 ci ay hadith wérul ñak jàng moko waral jël mbiru oustaz def ko yëfu taqale ak yëfu tricherie ñun itam ñun suñu réew mii ñu nekk nit ñoo xam ni ñun ñooy jàppale loolu di ko may doole ndax nit bugguñu nit kuy wax dëgg boo fi nekkee di wax naan leen yàlla nee na yonent bi nee na xooloo ci lu neex ma sàmbaak lu neex ma dem ba dëgg ji yàlla bëgg ñu wax ko ngay wax ñu lay saaga di la ŋàññ di la yëjj lu nañu wax la ko bu benn waay jógee fële boo xam ne dara ci xam-xam newul ci moom dara ci ragal yàlla newul ci moom ñaari fan ñett nga gis ko ci télé yi ñu koy tàntal ci mbedd mi ci weeru koor gi muy def ay conférence yu fees dell ak ay nit ñépp di wax ay waxam kon na ngay xam ne ci nit ñi la nit ñi ñoo bëgg yu yomb yooyu nit ñi ñoo bëgg yu doyadi yooyu ndax bëgguñu ku leen yëkkati ñu jóge ci li ñu nekk dem ci kaw nit ñi bëgguñu ko suufe ga ñu nekk ak yu doyadi yi nekk lañ bëgg ku ñëw di leen ci bàyyi naan leen di leen tàpp tàppal naan leen noonu la li ngeen di def baax na loolu la nit ñi bëgg ndax topp yàlla dafa laaj nit ki bëreg bakkanam topp yàlla topp diine dafa laaj nit ki bañ a jiital ay bànneex ak ay bëgg-bëgg ak ay sentiment ak ay baaxu baay ak baaxu maam da ngay def sacrifice ngir dëgg dëgg gënal la leneen lu dul dëgg yàlla gënal la leneen lu dul yàlla nit ki bu amul boobu courage dina jafe ci moom mu topp dëgg ku ko wax lu ko neex rek lay lay wut saa gisee ku koy wax lu ko neex mu ñëw jox ko ñaari loxo bu bëggee sax mu fóonal ko ay loxoom wax naa la lu la neex kontaan nga waaye ndax lii mooy dëgg ji yàlla bëgg nga topp il faut se poser la question yow li nga bëgg. du nekk fii ci àdduna bi di topp li la neex ak la li nga bëgg mooy toog tegu ci yoon wi la yàlla tegu mooy sa objectif bul nax sa bopp bul nax sa bopp mooy xoolal loola lu mu laaj ci ay sacrifice ak ay effort ngir topp yoon woowu nga def ko bu jaree nga jàpp sa bakkan bi nga ngalaab ko torturer ko xeex ak moom ba mu nangoo topp loolu demal toppi ji ko te ba nga bëgg lim la topploo nga topp ko ba pare di nax sa bopp di loo sa bopp ne maa ngi ci siraatal mustaqim lii la yàlla bëgg ci man te loolu moom moo fi nekk moo tax kon yëf yi dafa nax ndax fi nit ñi war a mën a xëy na déglee déggoo dëgg wala fi ñu war a mën a déggee xam-xam bu leen leeral seen pas-pas bi ñu war a gëm ci seen digganteeg seen boroom seen jaamuwu ni yàlla borom xam-xam boo xam da nga koy laaj masala sàngam mu ne la lii la ci yàlla wax lii la ci yonent bi wax lii la borom xam-xam yi wax ci jamono saxaaba ya ba léegi mën na ko expliquer mu leer sa bopp nga def li la yàlla sant soxlawul ci yow nga ne ko jërëjëf soxlawul ci yow benn dërëm bu ko nit ñi xamul sax baax na borom xam-xam yi mel noonu lañ soxla ñu nekk ci société bi di jubbanti nit ñi leen teg ci siraatul mustaqim pas ay nit yoo xam di doyadal ak di ko ñàkkloo fayda fexe ba kàccoor yi nga xam ne diine yitteelu leen di yëpp nit yi diine yi loolu moom mooy seen seen seen jubluwaay nit yi diine yi nga xam ne nit ñi dañ leen waroon respecté ci société bi même caaxaankat yi waroon am ci ñoom respect genre nit yooyu ñooy toog ak ñoom ci ay plateau di yablu seen bopp ak di ñàkkloo seen bopp fayda bu ko defee ñooñu yabaale ñëpp ñàkkloo ñàkkloo waale fayda diine yëpp loolu mooy dëgg-dëgg fi piège bi nekk te pour man loolu agenda la boo xam ni nekkul loo xam ne dañ koy def noonu rek mu nekk lu anodin loo xamante ni juste rek xëy na ay plateau la ak ay émission déedéet ña nekk gannaaw loolu di ko togg ak di cibler genre nit di leen recruter di leen yóbbu ci plateau yooyu ñooñu seen objectif dafa clair seen i jubluwaay dafa leer mooy yàq diine lañ bëgg ndax diine bokk na ci yoon yi gën a gaaw ci yàq ko mooy doy dal ko ñàkkloo ko solo ci xolu nit ñi ba ñu yab ko bu ko defee ñiy wax diine ay mokkee la leen nit ñi di jàppee képp ku jógati di wax diine rek dañuy jàpp ne yàgg di wa yam waaw dangay ngay wax nii rek waaye yow tamit dëgguwuloo ndax moo fi waxoon lii dem démb tey gis nañ ko muy wax nangam léegi bu ko defee crédibilité moo dul amati ci kuy wax diine te kuy waxal diine yàlla li mu gën a soxla mooy nit ñi am ci moom rafet njort ndax kiy wax kii waxal yàlla bu nit ñi amul ci moom rafet njort ak gis bu baax rek la muy dootul jariñ ndax saa bu waxee nit ñi dañ ciy sikki sàkk ñooñu nag di sikki sàkkaloo nit ñi ci nitu diine yi war a wax nit ñi diine ngir ñu tegu ci njub ñooñu yàq lislaam moo leen dafa a jóg malheureusement ñun suñu société bi ci boppam ñoo bëgg loolu te di ko jàppale ak di ko may doole jiitaluñu nit ngir topp loolu yëpp daf ñu fàttali xadis abdullah bin amr bi yonente bi alayhi salatu wasallam waxoon ne ci mujj jamono bu yàlla di jele xam xam-xam ci ci nit ñi du ko fi jële ci fàtteloo nit ñi xam-xam biñ jàngoon ndax yàlla dafa maandu waaye ni fi yàlla di jele xam xam-xam mooy dafay rey borom xam-xam yi buy rey borom xam-xam yi nit ñi duñu jàng nit ñi toog di xoole borom xam-xam yi di faatu borom xam-xam bu dem yóbbaale xam-xamam ku ko remplacer du fi mën a nekk buñ demee ba léegi terrain bi daal di vide ay borom yi xam-xam yu ko doy ak yu ko matee newatuñ fi ay nit yu ñeme yàlla yu dëgër fit yoo xam ni xàmmewuñ seen dàllu ndeyjoor ak seen dàllu càmmoñ ci lislaam ñooy jug daal di taraxlaay jug ne ñoom ñooy borom xam-xam yi bu ko defee nit ñi ci seen ñàkk xam. ñu foogee leen ne li ñuy wax dëgg la ay niti xam-xam lañ ndax léeg nga dégg ko mu jàng benn laaya nga ne ah, kon xam na ni ñu daal di ñëw commencé di leen déglu yàlla yonent bi nee na ñu réer ñoom ñooña ñu sànku sànk ña leen di déglu ak ña leen di topp loolu moom mooy li ñuy dund ci mujj jamono li ñuy gis dafa dëggal li yonent yàlla bi alayhi salaatu salaam wax kon nañu góor góorgóorlu mbokk yi ci xam-xam nañu joxaat xam-xam dayoom xam-xam boobu mooy xam-xam bu ñu teg ci alxuraanu yàlla ji ak sunna muy njàngale yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam xam-xam boobu mooy gaalub yonent yàlla nuux ga nga xam ni ba ndox ma ñëwee ku ca duggoon yàlla musal na la waaye ku ca duggul laboon nga xam-xam boobu jamono juñ toll rôle bu mel noonu lay lay lay joué góor góorgóorlu ñu jéem a jàpp ci xam-xam boobu mu nekk torche bu ñuy nite di ci natte lépp loo xam ne dañ ñu koy gaaral ak di ko wax ci diine bu dëppoo ak moom xayrun bu dëppoowul ak moom ñu bàyyi ko yàlla nañu yàlla subhanahu wa taala defal tawfiq